du mën a ñàkk ñu ngi leen di bëggewaat tey nag ñu ngi jàkkaarloog benn xale boo xam ne ni defe naa ne ñi nga xam ne ay amateuru làmb lañ wala ñu xam làmb war nañ ko xam bu baax a baax a baax muy kan ki nga xam ne moom mooy Ongué di doomu Lebu di mbër di champion ñu gisoon ko ci làmb ji ñi yaakaaroon ci moom mu am fu yegg fu sori ñu jekkee gisatuñ ko tey nag ñu ne xaaral ñu loxatil leen ko wan leen ko ba xam xullee ba xam Ongué ci lu mu ne daa bàyyi bëre wala qu'est-ce qu'il maa ngi lay nuyu di la ziar waaw maa ngi lay lu bëree bëri bëri waaw. jaam waaw maa ngi si jaamu sant yàlla bu wér a fi ñu la fekk nii fan la. waaw man yaa mu fekk fii ndayaan suma dëkk waaw fi laa juddoo fi laa yaroo waaw. nga Ndiaye nga ñëw ci làmb ñi gis nga bëree nit ñi naan kii xale bi xale bi ñu jékki-jékki gisatuñu onge balaa muy ñëw sax ci li tax gisatuñ la onge lan moo ko dugal ci bëre bi nga xam ne da koy def ne na da ngaa mën ko doon roy da ngaa maam buy bëre wala kes wala lu xew. waaw bëri moom suma mag yi ñoo suma mag yi ma judd fekk ñuy bëri quoi wuus ah Moussa Ndiaye waaw waaw après ma ñëw nag dugg si bëri bi quoi noonu la demee waaw. mais da nga amoon idole bu dul même sa mag yooyu da nga amoon idole ci làmb ji ko daan seetaan mu neex la wala. non ça man daal suma mag yi laa topp quoi ñoom Tyson 2 ñoo fi daan bëri ñoo suma mag yooyu après man ma ñëw topp si ñoom ginnaaw waaw ñoom ñëw ñëpp ku nekk yor naa seen bëri waaw loolu la demee quoi. Euh, mbapat da ko bëree. waaw Mbapat li ma bëree Mbapat moom bëri na trop trop trop waaw waaw te li ma si am trophée moom du jeex du xaaj ko loon wax fii ba suba sax du jeex. Mbapat si fii rek ay ndayaan dëkk yi wër fii ba Sokone Kaolack fépp fu nekk waaw Sokone dama fa demoon toog fa sax waaw di campagne foofu bëree noonu la demee. li ci gagné ci xaalis ay nag ay terrain est-ce na. non dëgg yàlla moom nag moom gañe woon naa ay nag yu bëri ba ñu commencé di am doom waaye xam nga ba leen nun lébu yi nii pour yor nag day jafe da koy joxe chaque jour suba ñu woo la ne nag wi dee na nag wi dee na si mujj yi nag mën a jaay leen yëpp boo jëlatee nag dangay ngay yar ba mu baax rek nga jaay ko loolu moo tax fi mu toll waaye bu fekkoon ne am noonu nag ku ma yoral nag bon heure bi maa ngi xëy géete waaw loolu demee. boo jëlee drapeau soldat yooyu yan raison ñan ñoo organisé woon année yi nga koy jël. benn bi benn bi Diourbel la woon benn bi Fatick waaw. équipe bu Thiès boobu yaa kan ak kan ci nekkoon. waaw ñi ma si nekkoon euh, ñoom Cheikh Ousmane ñoom assurance waaw bu Fatick bi tamit Pacha moo ñu demaloon poids lourd Pacha mu buur waaw ñoom Yaay Xadi ñoon laa fa nekkaloon waaw. kon yow su ma la maanaam drapeau yi nga jot a dem da dem équipe bu Thiès après dem équipe bu Fatick. bu Fatick organisé maa ko jël. waaw waaw jël ko Diourbel ñaar yooyu jël waaw. mais tey suma dikkee ci tournoi yi nga xam ne bëri comme tournoi yi ñuy teg teg nañ un million ou deux millions ban tournoi nga ci mës a gagné boo xam ne xaalis bu bëri na trop ban boo ciy fàttaliku. waaw tournoi yi moom man fii Somone jëloon naa fa un million saison bële passé rek waaw. waaw tamit lamba yu mag yi ma fa dem yëpp damay dem quart de finale am bii rëg-rëg rëg bii ko fara fara bi muy bii fara di jëkk daan su boobu quart de finale lañ ma génne attaque si quart de finale yi waaw noonu demee. da nga bàyyi simple bi. maa ngi si waaw maa ngi si bu baax. saison bi passé nii rek bii corona bi laa lii fekk jël naa drapeau quoi commencé woon naa jël drapeau dëkk bi ñuy wax fii ñangal léegi ñu ñëw ci lutte avec frappe bi euh, wala sax balaa ma ciy dugg lutte simple bi noo ko gisee ak xaalis bari bi ñu ciy teg promoteur yi ci teg xaalis bu bëri ay millions yu bëree baree bëri mel na affaire bi fi mu nekk nii dafa am noo ko gisee ak tey mbëri ci ne di ci bëre sa morom yi ci ne di bëre moo xam ñoom Reug Reug ñoom Franc ñoom Serigne Ndiaye ñoom Ibou Senghor ay Obali ñoom Doudou Sané mbër yooyu yëpp yëpp ñu ngi ci biir di bëre mbër yooyu li xaar bëri bi ñu ci teg noo ko gisee. mu gën a yokku rek parce que bëre moom kenn mënul fay nit ki bëre dafa metti ñi yaakaar tamit sa ginnaaw waa di wax gars yi ñu gën a góorgóorlu rek nekk si promoteur yi tamit gën a yokku tegi mbër yi gën a góorgóorlu rek waaw noonu la demee. mbër yu mag yooyu ma la fi limbal ñëpp ba si ñoom ngel joon ay ordinateur ay Serigne Ndiaye ay Faran ñoo ñëpp hmm? mbër yu mag lañ ko ne xam ne ci lit simple ay óbbal yi ñooñ ko ji ñan nga ci mas a dajeel daam ko jotuma bëre ñoom waaw jotuma bëree ñoom waaw ñoom ñoom ñëpp jotuma daje ñoom daal dinañu fekkente làmb nag waaw dajewuñu quoi waaw loolu naa si waaw bi daal victoire la am benn défaite défaite bi nga am mooy bi a Konia jot a daane boobu kese nga daanu kese laa daanu waaw am na suma combat bu mu loon bëri Thiès nag boo amoon na erreur nag waaw après dama defoon recours ñu deeloo ma daan bi max ay dara waaw maa ngi yow pare nga pour bëre mais faw nga wax koo bëgg a bëreel tamit mais Alioune Seye dépassé la ci làmb yow dépassé Alioune ko loolu moom. Alioune Seye de bu Géejawaay. loolu moom sax maa ko man Ndiaye yow xam Alioune Seye de mbër mu mag la de sama waa ji. ah man du ma mbër ma ndaw man li ma fi def drapeau chef de le bëre dix combats Balla Gaye defu ko Yékini defu keneen nax keneen ñoo te ñoo ngi si Modou Lo ñoo ñëpp kenn defu ko si. Yékini jëlu ko euh, fële wala euh, wala wala ko ñàkk moom ak Zallo bi ñu koy finaalu. Zallo daanu ko. loolu yow laa koy laaj. ah Zallo ko daan de bu ma jiwmul hmm. waaw. ma juumul Zallo ko daan de. kon daal yow su ma la déggee muy Yaxya muy Balla muy Moodu ñoom ñëpp pour yow li nga def defuñu ko. ah defuñu ko de parce que kenn jëlu ko fi te man jël naa ko deux fois. moo tax daal nga jàpp ne kon sa diggante ak Alioune daa war a leer. waaw ah, daa war a leer daa war a leer de ku dul Alioune Seye tamit na ma pour béré. waaw comme ku nekk si làmb ji rek am nga mbëri mbëri tey ji boo limee diw rek danaan diw dama nekk si ma dama waaw parce que yaa ma ko yaa ko forcé moo tax forcé um dama laa laaj rek man waaw non la non yaa ma ne ndax mënoo jaar si tur man tamit ma cité la benn tur rek mhm. di làqu kay ma ne la jaaral digg bi rek tuddal ki xel ne waaw jaar naa si nag non mbëri moom bëri nañ si làmb ji man pare naa pour bëre ñëpp ku ma si yàlla boolal rek pare naa pour bëre waaw man moom aw ma tolof tolof si làmba ñaaka bëre daal mooy sama tolof tolof kese waaw te ainsi nii nuñ ku si am combat sant yàlla parce que suñu waa dëkk dañ laan génn di dem campagne boo amee combat nii da ngay jifir la ñuy dem campagne da nga fay jël xaalis bu ay cent mille boo doonee mbër mu ndaw lool doo ko mën waaye fi mu dool waa dëkk bi ñëpp ñu ngi fi toog. ñàkk bëri donc mooy problème am. aw ma benn tolof tolof si làmb ku ma gëj a gis tamit na xam ne man ñàkk combat rek moo tax gisuma waaye li ma si meloon ba tey maa ngi si maa ngi entraînement gëm naa sama bopp xam naa sama bopp waaw ñàkk combat rek moo ñu sonal. noonu la demee. tey làmb ji boo ko gisee ni mu mel nii ak corona bi làmb ji taxaw promoteur yi taxaw ay combat doon dañu ngi taxawal ay combat taxagul ñu xam kañ ñuy tëgg làmb yow looy wax. waaw lii moom wax dëgg métti na si ñëpp métti na si mbër yi métti na si promoteur yi boo yaakaaree làmb tamit feebar bi kenn xamul ndax tey jii di nga bëre ndax suba di nga bëre tey tamit ñu ngi entraînement rek di am yaakaar di ñaan daal yàlla jëlee ko fi rek ñu nekk si course bi daal waaw ñëpp am jaama daal. Mhm. Tyson 2 am na combat ak Franc muy sa mag ngeen bokk dëkk ndaayaan diggante ak Franc noo ko gisee. waa di ko ñaanal yàlla rek xam nga yàlla moom moom moom ay ndamam di ko ñaanal yàlla may ko ndam waaw sa waay moom la Franc champion la waaye bu fekkee bëre rek xam-xamu bëre rek waaw sa waay moom li mu seyor macha allah di ko ñaanal rek yàlla may ko kantan bu jour waa yàlla may ko ndam waaw. Mhm. Franc maa ngi koy gërëm bu baax waaw waaw. ngeen xamante. waaw Franc xamante nañu si làmba yi nii rek. waaw noonu la demee. lamb ji tey boo ko xoolee nii ak mbër yi mbër yi fi ne di bëri actuellement roi des arènes ku ne xam ne Modou ko yor ko maam ak Ama Baldé taxaw na Balla Gaye Bombardier Boy Niang ak ki nga xam ne moom mooy Tapha Tine ah Siteu Papa Sow ak yeneen combat yu bëri bari yoo xam ne ni taxaw na tey bu ma la laajoon tey lamb ji mbëri mu fi dàq bëre loo may wax. mbër mu fi dàq bëre ah gars yi moom ñoom ñëpp ku nekk am na say qualité moom waaw yoo yor waaye si moom mënu cité na kii moo daax bëre waaye moom waaw Tyson 2 tamit gaynde la ko quoi man mi wax ak yow nii nit daaxuma bëri si àdduna waaw ñaaka komba rek moo ma sonal waaye bu lay xam-xamu bëri dëkk bi boo si laajee Tyson 2 Onga Ndiaye lañ la xam-xamu bëri moom kenn daaxuña ko waaw waaw mais su ma leen bëri ci kaw ku ci dàq bëre bu la bu boo ci nga génn ci sa bopp génn ci Tyson 2 nga nga mbëri ci kaw ku ci kan nga ci yaakaar ne moo dàq bëre pire bëre yi Balla Gaye moom wax dëgg yàlla mën na bëre trop trop Balla Gaye man na bëre trop trop Modou Lo tamit waaw macha allah man na bëre lu waaw waaw ñoom ñaar ñoom ay champion la ñu ama seen tamit champion la Ama Balde tamit waaw maa ngi koy bu baax moom tamit moom tamit champion ndaanaan la waaw. Ama Balde ndaanaan la loolu yaa ko wax diggante Ama Balde ak Modou Lo. waaw diggante Ama Modou Lo moom waaw lamba ju rëy la moom wax dëgg yàlla lamba ju war a neex la waaw pirip dib moom bu si amul ah bu demee bu diire moom du sotti si Ama Balde de ma ne pirip dib bu si am Ama Balde man na daan waaye bu combat bi demee distance du lawet si moom de. maanaam bu rombee cinq deux minutes trois cinq minutes dootul lawet ci Ama pour yow. waaw ah, du lawet pour man de. man tax muy wax bu keroogee pour moom. Ama moom bu arbitre sublee moom foo mën a taxaw dina la fay gisee waaw bu la jàpp bu la jàppee daanu la tamit ak ah, condition bi affaire moom dina am ko ne waaye dafa man loolu de. te Modou Lo kurpeñ yi day jóge fu ne waaw loolu moom dafa leer moom dëgg la de. Ama daal yow li nga koy digal mooy mu fexe combat ba teel a jeex. ah ku nekk bëri xam nga li nga man soo ko bàyyee rek li nga fay fekk du la neex li nga man da ngay ñëw nga wane ko nga am si lu la ne boo ko wanewul nag da nga si jëlee lu a naxari rek amaa ku ko mën a conseil conseil loo mën a wax moom li muy bëree moo ko xam bu arbitre suble si kawam la jëm. waaw waaw. Tyson 2000 li ngay gis nii. fii ba suba boo bu daje woon a ku lul mbër yooyu sax boo bu arbitre suble si kawam la jëm parce moom la taamu bëree waaw ku nekk man mii di wax ak yow nii yi dañ nit ñi dañuy wax dama ëppal te ku nekk rek ah ni nga bi sa bëree noonu la boo ko bàyyee da nga ciy fekk lu la naxari. loolu nga wax am na solo mais mais mais kon Modou Lo daal moom maanaam bëreeg moom temps bu yàgg bëreewul wóorul pour yow bëreeg Modou Lo temps bu yàgg. waaw bëreeg Modou Lo temps yàgg moom wóorul quoi avant moom mm, bëre moom Sénégal moom kenn daaxu ko fi. moo Lo tamit kenn daa ko fi ba combat bi daal dina neex moom waaw wax dëgg yàlla yàlla na yàlla def rek corona bi jóge fi combat boobu war na mën a yóbbuwaat làmb ji foo xamante ne nii ñëpp dinañ ci kontaan daal combat bu war a neex la waaw bu soobee yàlla corona bi rek la ñuy ñaan mu quitté fi rek waa ku nekk nekk si li nga nekk. Nicolas di ko gërëm rek di ko sant tamit di wax nun tamit nun mbër yi Petit Côte bi ñoom Tyson 2 ñoom Ongué Ndiaye waa ndayante bi ñu ñu gestu si làmba ji di ñëw bu amee programme mu dugal ñu si parce que noonu ko ñu jàppale rek lanu ñu amul moo tax ñu nekk fii waaye lii mu décroché noo combat bu neex la di ko si ñaanal mu am si réussir waaw. koo xam ne si yéen a dëkk sorante wu ngeen muy Bombardier mook Balla boobu combat taxaw na. di ko ñaanal rek Bombardier si Petite Côte bi la dëkk waaw. di ko ñaanal yàlla may ko ndam si combat mbay boo xam Balla waaw. ma grand la dañuy déggante sax Bombardier waaw maa ngi koy ñaanal si komba bi yàlla na ko yàlla may ndam yàlla moo yor ndam nag waaw di nuyu tamit Balla Gaye bu baax waaw. looy wax sa supporters yi ak ñi lay béggee ak ñi nga xam ne ñu ngi lay xaar ci làmb ak amateuru làmb yi en loo leen di wax ban yóbbante nga leen di jox. ñaaka combat comme ñu ko waxee woon rek moo ñu sonal waaye fansa yëpp ñu ngi wax chaque jour combat combat diw ñuy wax tamit dina baax rek ba tey léegi nii muy loolu waaye yàlla baax na daal waaw ñuy wax nag ñun ñu ngi ñu si nekk woon tey jii la gën a pire waaw. Ongué am na soxna. am naa soxna rek Tyson 2 sax laa takka. ah Tyson 2 nga takk rek. waaw moom laa takka. boo ko ak baay waaw. Mhm. loolu dem waaw. am kañ. waaw mu ngi yàgg nag de mu ngi yàgg waaw am na ñaari doom. kenn ku góor ak kenn ku jigéen Tafa ak yaay maa ngi leen di bëggee ak sa ñoom yaay Amsatu maa ngi di bëggee bu baax a baax waaw. Mhm, waaw. rek takk takk rek waaw noonu la yàlla moo dogal loolu. Mhm, yàlla moo dogal loo koy wax moom madame. waaw madame di ko gërëm rek di ko sant moom moom day jàpp si affaire bu baax aw ma fayam di ko ñaanal bu baax a baax maa ngi koy gërëm di ko sant waaw sonalu ma si dara billaay walaay. waaw maa ngi lay béggee gu wér a wér man tamit kontaan naa si yow bu baax a baax béggee naa la de waaw. gars yi noonu la demee woon ah Ongué xam ngeen ko la grand champion nekk xale boo xam ne tamit wax dëgg yàlla avenir u ci la bokk tey moom lañ seqaloon waxtaan ci Equivox TV. wala Vox Arena du mën a ñàkk xam nga di leen jox rendez rek ci yeneen mbër ak yeneen champion parce que nag ak euh, Vox Arena moom jàppal ne cent pour cent lamb da nga ko fay dund ak Babacar ak kan Elas numéro 11 laa ko tudde parce que moom mooy Elas Diouf waaye xulle mi nga xam ne nii mook sama doomu ndey ja mën naa ne benn la ñu ndax lépp xulle la te foo leen fekk maanaam la ñuy def dañ koy maîtriser téye ko macha allah man ko loon kon xulle moo newoon ci film bi montage bi Elas la yàlla Sénégal am jàmm di ñaanal Ongué Ndiaye tamit comme li wax lig Nicolas dégg ko ne na ñoom ci Petite Côte bi rawatina nga gestu leen jàppale leen parce que naa tamit di ci boole waa ndaayaan da ciy baax lig ma koy nuyu di ko ah di kontaan di ñaan yàlla na jàmm yàgg Sénégal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam